Sene Info International. Sene Info International bonjour. Euh, dalee nag jàmm si euh, yéenekaay yi yu gën a fës lu gën a fës si yéenekaay yi tey mardi 14 euh, novembre 2023 si Sénégal donc dañ koy doore rek si journal Le Soleil Le Soleil bi nga xamante ne ñëwaat na si tournée économique bi nga xamante ne Macky Sall def na ko fële ca Kédougou gannaaw accueil bi nga xamante ne population Kédougou bi jagle nañ ko Macky Sall muy na nekk en accueil chaleureux Euh, si waxtaan bi euh, président Macky Sall euh, dégagé na benn programme boo d'investissement prioritaire pour Kédougou pour deux mille vingt quatre deux mille vingt six donc nekk programme boo xamante ne programme bu rëy la de six cent milliards de francs CFA donc programme boobu jël na ay mesures ay mesures phares lu toll bu si quinze mesures donc le soleil mu ngi leen koy mu ngi siy ñëwaat si mesures yooyu nga xamante ne président Macky Sall jël nañ ko jël ko si tournée boobu nga xamante ne Euh, def mu ngi koy def mu ngi koy wel nii euh, si Kédougou ñu jàll si beneen journal muy l'indépendant toujours rek mu ñëwaat euh, si tournée boobu mais si beneen fànn parce que boo leen dégloo tout à l'heure wax naa leen quinze programmes phares yi nga xamante ne tournée économique Macky Sall jël na jël ko en compte dans le de programme d'investissement là immigration clandestine def si bokk parce que comme ni ngeen ko xamee immigration clandestine nekk na loo xamante ne lu lu lu doy waar la phénomène boo xamante ne Euh, jeunes yu bari ñu ngi ci euh, ñàkk seen bakkan donc Macky Sall nag na jot na tey nag mu agir mu agir nag donc si programme boobu jël na en compte immigration clandestine bi nga xamante ne mu ngi mu ngi faat euh, jeunes yi donc nee na jeunes yi daal il faut agir si si si si si si immigration clandestine ndax mu mu dàkkal ko ñu ñëw encore si beneen ëttu ëttu yéenekaay bi mu ngi le point le point nag dafa ñëw si benn surprise bi nga xamante ne kii li nga xamante ne mooy Birima Ndiaye defal na ko jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi yeewoo foofu si Sandiara donc ñu xamul Sandiara Sandiara mu ngi nekk dans le département de Mbour donc euh, Birima dégagé na une enveloppe de cinquante millions de francs CFA jagleel ko jigéen yooyu nga xamante ne ñu ngi nekk foofu si Sandiara pour ñu mun a gën a suqali seen bopp gën a mun a suqali seen koom gën a mun a aussi demal seen jàll ci beneen journal ñu ñëw ci la tribune la tribune tey dafa xëy euh, ci quarantième jour euh, de Momy euh, Bougane Seck ne la Bougane Bougane demande pardon Bougane ne na mu ngi jégalu vraiment soxnaam jégalu aussi jigéeni Sénégal jigéenu àdduna ci feba bi nga xamante ne daloon na parce que à travers feebar bi nga xamante ne daloon na soxnaam ci si la xamee réellement jigéen ñi lu ñuy dund donc euh, moom euh, si témoignage bi nga xamante ne def na ko à l'encontre de sa femme kii di Mimi euh, nga xamante yàlla moom na ko il y a 40 jours nee na ko maam Seynabou m'a certes mis au monde mais tu m'as couvé comme un enfant donc jàpp na ne Mimi tey jii wégoon na ko wég boo xamante ne vraiment moom jooyul woon yaay ndax nekkin bi nga xamante ne rafet boo xam nekkin bu rafet bi nga xamante ne soxna si nekkee woon na ko ak moom donc nee na ko tu protectrice et opportune donc vraiment c'est un hommage mérité bi nga xamante ne Bougane Gueye Dany rendre na ko euh, hommage a son épouse nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom mooy Momy euh, euh, moom ko donc ñu ñëw si la dépêche ba rek comme ni ngeen ko gënaan comme ni ngeen ko xamee actualité bi moom dafa gën a fësal rek tournée économique ba nga xam boobu nga xam ne Macky Sall mu ngi koy wéyal si Kédougou si mesures yi décision phare yi nga xamante ne Macky Sall jël na ko donc fi décision yi aussi dañ siy ñëwaat ginnaaw bu ñu waxee immigration clandestine ak yeneen ponk yi na ci yeneen ponk yi nga xamante ne mooy renforcer le maillage sécuritaire de la région donc xam na kép xam ñëpp xam nañ ne Kédougou dafa bari ay ressources donc pour ñu gën a mun a jëfandikoo ressources yooyu il faut ñu renforcer la sécurité loolu la président Macky Sall wax te loolu bokk na si mesure phare yi nga xamante ne jël nañ ko euh, dans le cadre de cette tournée économique du président Macky Sall donc ñu ñëw encore si enquête enquête aussi nee na 600 milliards pour Kédougou donc ñu ñëwaat dans le sens si programme d' investissement boobu nga xamante ne prioritaire nga xamante ne c' est pour euh, euh, deux ans ou trois ans de 2024 à 2026 nga xamante ne Macky Sall jël na ko dégagé na ko pour vraiment gën a développer région euh, Kédougou pour mën leen gën a mën a sukkali donc mu ngi donc.